non moo tax moo tax man pour moi euh, même dialogue warul nekk objet bi warul nekk rapport hmm. parce que c'est pas aux politiciens de discuter hmm. est-ce que dañuy reporter la hmm. voix l'expression citoyenne quand même quand loolu je veux dire ça les Sénégalais ne doivent pas l'accepter ne doivent pas accepter ay politique daje di décider seen seen moment choix. est-ce que dañ koy décaler fii dañ koy yóbbu fële. je suis un politique hein, mais parfois je porte ma casquette citoyenne pour dire que c'est pas normal c'est pas le moment du choix est arrivé ça doit avoir lieu mais quoi qu'il quoi qu'il en coûte à moins mu def peut-être un référendum peuple est vous êtes d'accord. mais du heure bi lañ koy. waaw non je veux dire peut-être loolu moom mooy sax moom moo doon kii demander au peuple est vous êtes d'accord qu'on décale le moment de votre choix. bu bu peuple bi ne d'accord nañu peut-être là y a pas de problème mais c'est pas des des des yow ñoom ñooy entre quatre murs et puis moo tax sànq ce que je voulais dire sur la communauté internationale c'est vrai ñu ngi rafetlu yenn seen seen seen position bi mais ñun en tout cas ñun au niveau du PRP au niveau de notre coalition nga xam ne dafa am un point fondamental bu ci def mooy le fait ñu war retrouver suñu souveraineté aussi bien notre souveraineté stratégique notre souveraineté économique notre à tout point de vue moo dañoo gëm ni c'est pas la communauté internationale ñoom ñooy régler suñu problème mm-hmm. Mm-hmm. les problèmes c'est aux Sénégalais aux citoyens sénégalais de régler leurs propres problèmes parce que communauté internationale boo xoolee seen position c'est à géométrie variable mm-hmm. tey mën nañu am intérêt ki bu affaire bi évoluer ñu ni seen intérêt changé na mm-hmm. mais dañuy soutenir Macky Sall bien sûr mm-hmm. gis nañ ko dans gis nañ ko dans tous les pays yoo ni am na am na conflit mm-hmm. parce que ñoom et puis à juste raison ils défendent leurs intérêts bu ñu ni seen intérêt fii la nekk dañ dañ dañ fay dem donc aujourd'hui moi ce que je crois d'ailleurs hier euh, Déthié l'a dit que gars yi ñu laaj où sont mais que chaque Sénégalais se pose la question mooy où est fan fan la nekk que chaque Sénégalais et que ñu mënee kii bi war détermination bi war ñu wane ko taxawaay bi war ñu wane ko quand on appelle les gens à sortir à manifester pour wane que ni d'accord ñu que les gens sortent bu ñu ko defee dinañ def une pression suffisante et nécessaire au niveau du conseil constitutionnel wala conseil constitutionnel au moment de de de décider dina xam ni que le peuple sénégalais. n'est pas d'accord si ce qu'on li nga ko bëgg li nga ko bëgg dina ko faciliter liggéey bi. Mm. mais bu ñëpp toogee seen kër. Mm. toog di seetaan di accuser les politiciens naan politiciens yi génnuñu ah, defuñu defuñu. ñoom ñëpp alors que alors que. yow yaakaaroon ne peuple bi ba léegi dañ leen neutraliser avec les emprisonnements. gis nañ fi les armes de répression. bëgg wan ñu sax ay défilé. lu toll ni défilé ñu ñuy wan ay drone yoo xam te ni seen mission mooy di sànni ay grenades. waaw mais bu ñu euh, nangoo gaz lacrymogène bu ñu nangoo dañ ñu dañ ñu neutraliser ba mu justifier que dootuñu def dara mais qu'on accepte notre notre sort. d'accord d'accord mhm. d'accord. peut pas vouloir une chose et son contraire nag quand même. notre sort et on laisse Macky Sall euh, faire ce qu'il veut.